Conseil sénégalais des chargeurs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 taxawuñ woon di ko gis Souleymane Téliko ci presse bi la waxee ne atteb Khalifa Sall am na ay ndëngate Assane Sambo nee na fii bërki de moo njaay gis nañ fi ñaari magistrat yoo xam ne maanaam kenn ku nekk ma ngi tuumaal sa morom ci lu jëm ci mbirum ger ba ñoom ñaar ñëpp ñu déglu leen Yaya Amadou Dia ak Ousmane Kane te loolee maanaam daawuñu ko gis léegi jamono ji li nga xam ne magistrat yi doonuñu ko làq Sénégal yi ñoo ngi si commencé teg seen bët lu jëm ci wàllum armée bi ak coow lii nga xam ne am na si wàkkaam tax nañu bari jóg di songu armée bi di ka ñi te loolee daawuñu ko gis ci réew mi journal bi nee ñi nga xam ne ñoo yor communication armée bi fan yi ñu génn gis nañ ne doon ñu tontu ab militaire boo xam ne ma nga ca Mali te loolee gis DIRPA di tontu lu jafe-jafe woon la wala sax ngay gis kuy song armée bi te Mame Gor Diazaka gis nañ ko ne song na fi armée bi bërki démboo njaay Assane Samb nee na en tout cas li am ba des daal magistrat yi askan wi wegoon nañu leen lool ak armée bi yéene kaay gi de la témoin ak las xëy di ñu xamal lan ñu coow li dox diggante Mansour Faye ak Ousmane Sonko ba léegi nii njaw ma ngay wéy di desu xam bi na ndax Mansour Faye tey nag dina janoo ak taskatu xabaar yi yéen kaay gi ne na est ce que nag Mansour Faye yi nga xam ne gàlloon na ko ci ndoddul Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko moo ñëw bureau doon sàkku ab audience digganteem ak Macky Sall ngir Mansour Faye dox médiation bi loolee bi waxee Ousmane Sonko na ko na ko andil ma ci ay firnde réew mi ko di na Mansour Faye tey jii nag lay ndax dina ci andi ay firnde li ci kanam rawati bët yéen kaay gi di xëy di ñu xibaar naan ñu yi nga xam ne ñoo nekk sa Thiès mer ba ma maara day taal yi ci Souleymane Téliko mii nga xamante ni maanaam moom la ñuy woolu di ko déglu ñoom nag nee nañu bu ñu dëkkul woolu gi nga xam ne moom lañ koy woolu ak di ko jéem a xoqutal ak di ko jéem a teg na ñoom danañu bolo li nga xam ne maanaam mooy justice bi kafuñu ci réewuñu ci yéene kaay gi di libération ak Sud Quotidien nee na magistrat yi nga xam ne ñoo nekk ndakaaru ñoom nag nee nañu maître Malick na nañu ko dàq ci ni mu gën a gaawee ndax dafa yàq li nga xam ne mooy justice bi xoqutal gi nga xam ne maanaam moom la fi nekkee loolee ñoom nee nañu mënuñu ko nangoo laas yéene kaay nee na nii neexul ba neexul waaye nag UMS kuréel gi ëmb magistrat yu Sénégal mer nañu ba maara day taali tey jii dinañu janoo ak taskatu xabaar yi libération yéen kaay nee na Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu wér gi yaram gi démb ma nga woon Touba nee na màggal gi ni mu ko gisee jàpp na ne lépp dina jaar si yoon te xalif général des Mourides maanaam joxe na nag ay leçon mbooleem Sénégal yi ci lu jëm ci wàccoo ak li waa kër docteur Diklé évidence yéen kaay nee na Sahara Iyane Thiam ministre bi ñu dénk wàllu microfinance ginnaaw communiqué bi nga xam ne génne na ko ne képp koo xam ne màggali nga boo dikkee di nga toog lu toll ci fukki fan ak ñeent loolee am na murit yu bari yoo xam ne merloo na leen ba ñeen ñi sax jóg nañu jokkoo si ak Macky Sall ngir ñu dàq ko yéen kay gi di réew mi quotidien nee na gàmmu annuel njabootug taal-taal gi xalif général Thierno Madani Tall moom nag daat nay wax ne gàmmu gi ren du am ak li nga xam ne mooy ziar général bi yéen kay gi du l'observateur xëy ci wakaam coow li nga xam ne moo xew ci terme sud ña nga xam ne ñoom lañ fa ne loolee nag tax na am ndaje am na diggante armée bi ak service technique yu état bi jamono ji lu jëm ci daanal kër yi sax daat nañu koy teg ci suufa ba pare nag xaar njiitu di Macky yiy yàbbi sa yéen a kaay gi di réew mi ko di jee lu soxal ñaxtu manifestation yi nga xam ne askan wi yeewoo Guinée ñoo ngi ko doon def ci lu jëm ci bañ Alpha Condé maanaam soppi constitution ba ngir am ñetteelu mandat ñi nga xam ne ñoo ko doon naqarlu am na juróom fukk si ñoom ñoo xam ne rey nañu leen waa ñoo ko xamle a kaay gi de la témoin nee na Alpha Condé na lool njiitu réew mi di Macky Sall Alpha Condé mere na li ko waral mooy fan yi ñu génn Macky Sall ci boppam moo dalal Cellou Dalein Diallo maanaam nag defal ko tapis rouge loole nag moom metti Alpha Condé loola frontière yi nga xam ne nag Alpha Condé bloqué na ko yéen a kaay gii da la témoin nee na bu ngeen gisee mu ko li ko waral mooy dafa bëri ñoo xamante ni ñoo ngi ci Sénégal te Cellou Dalein Diallo la ñu àndala bëri na nag ay matériel yoo xamante ni Cellou Dalein Diallo moo ko moomu Alpha Condé daf ko bloqué ca frontière ba matériel boobee nag dafa jëm ci ay t-shirt ak ay casquette ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllum communication ak propagande ngir campagne bi nga xam ne Cellou Dalein bëgg na ko def mbooleem li nga xam ne da ko commandé woon Sénégal dañu ko bloqué ca frontière ba yéen a gi nee na Alpha Condé yëkkati na ay kàddu nee na Sénégal ak Guinée Bissau ay pël ñoo leen jiite te loolee crime la te loolee scandale la yéen a kaay gi de la témoin nee na Aliou Sall rakku njiitu réew di président Macky Sall defeti na loo xamante ni soo muytuwule coow musiba ak mbelengaan dina ko topp ndax dafa am benn école boo xamante ni école Daaru Salaam lañ ko doon wax ci géej waaye maanaam Aliou Sall soppina na turu école Daaru Salaam tuddee ko Macky Sall yéen a di Stades xëy ci Ligue tirage bi nga xam ne def nañ ko si niki démb match choc moo am diggante Barcelona ak